ni ma ko waxee Aliou Ndiaye la ñuy dalal et c'est un honneur et plaisir euh, ñuy bokk ak moom plateau bi Aliou ñu ngi lay nuyu bu baax di la dalal Infos Matin. soxna Fatima ngi lay euh, delloo nuyoo. Mm-hmm. di sant di gërëm. Mm-hmm. Euh, di nuyu sama xarit ak sama rakk yi ma fekk ci plateau bi. très bien di kontaan mm. di teew ngir. mën a waxtaan ak yéen. Mm. mën a waxtaan ak askan wi. macha allah waxtaan bi euh, njëriñ euh, lañ ciy jëlee incha allahu rabbi ni ñu koy defee ci ak sunu chroniqueur yëpp tey nag jàngat bi euh, Chérif la pratique du journalisme au Sénégal maanaam liggéeyu méccam tasum xabaar. waaw moom euh, ku ci war a mën a wax la ndax euh, jiite na ay organe de presse am rek ndomba tànk gu nekk quand même mhm. ci atuk atukaay bu nekk rawatina quand même fii la ko mujjee defee sax di groupe Futur Média Alioune mhm. euh, situation fii mu toll nii est-ce que boo doon noté journaliste yi ci nii ni traité information bi surtout li nga gis déjà ci une yi lan ngay wax waaw xam nga li may wax rek man dafa am benn benn taxawaay boo xam ne moom mës a nekk sama taxawaay mhm. mooy dama jàpp ne euh, génération bu ñëw bu weesu day jàpp toujours ne moom moo gën génération bi topp ci ginnaawam. Uh-huh. et nit ñi dañuy dund ci li tubaab di wax vivre dans le passé jàpp ne. Uh-huh. ñun kat suñu génération bi ñu fi nekkee naa nga wax naa nga mais maa ngi fàttaliku man ba ma nekkee déjà euh, ci école de journalisme maanaam CESTI. Uh-huh. Euh, amoon na benn livre bu benn waay bindoon bu tuddoon leer du soupçon. boo xam ne daf doon wax. Euh, journalistes yi niñ leen niñ leen soupçonné ni ñu jàppee ne lu bëri li ñuy wax du dëgg euh, damaa jàpp nag ne euh, loo gis bu dee da ngay xeltu rek maandu am na lu baax am na lu bon mm. am na tey ay journalistes yoo xam ne ñi ngi def seen liggéey consciencieusement dañuy xëy wàcc parce que sunu liggéey mooy lan collecte et traitement de l'information am na ñoo xam ne ba léegi ñi ngi ci collecte et traitement de l'information am na ñoo xam ne nag ñi ngi ci leneen waaye defe naa ne problème boobu euh, dafa posé wu de manière globale hmm. pas simplement ci Sénégal mais bu ma xoolee le journalisme dans le monde boo xoolee tey crise crise bu gën bi gën a bi am ci àdduna mooy crise ukrainienne mm-hmm. Mm-hmm. boo seetloo traitement de l'information bi ci gars yi def mm-hmm. ak politique yi ni ñu accaparé média yi ci en Occident et partout ku nekk di raconter xam dem nañ ba léegi sax du information la ñuy wax mais narratif la ñuy wax mhm. c'est-à-dire dañuy wax le narratif des occidentaux le narratif des russes cest à ku nekk da nga am sa benn roman boo xam ne sa benn livre boo xam ne moom ngay moom ngay toog di ko nettali mhm. ba pare di utiliser journaliste pour ñu nettali ko mhm. loolu nag dafa am fii ci Sénégal Sénégal fii dafa am euh, homme politique yi surtout ak yeneen pouvoir ah, mu nekk pouvoir religieux mu nekk pouvoir économique parce que fii am na euh, ci wàllu diine loo xam ne ñemee ñemewoo ko fee wax wala am na ñoo xam ne dafa am fu ñu far foo xam ne foofu la ñuy waxee am na ci wàllu politique euh, ci ñoo xam ne dañu nekk ci pouvoir bi ñu nekk ci pouvoir bi am mhm. am doole ci wàllu ci wàllu koom-koom am doole euh, ci wàllu justice am doole ci yeneen wàll. Mm. am na ay journalistes tey yoo xam ne clairement boo xoolee ni ñuy liggéeyee dangay xam ne ñoom la ñu àndal ñi nekk ci opposition bi tam da ngay gis ay journalistes wala ñu naan ay journalistes lañ. Mm. ñoo xam ne da lay wóor ne ñii. ñii la ñu àndal loolu nag moom mooy indi euh, benn jafe-jafe parce que nekkatuñ ci collecte et traitement de l'information simplement mhm. dañu nekk ci benn interprétation de l'information boo xam ne mhm. dafay dafay jéng dafay féete boor mhm. loolu bu amee nag mën na indi mën na indi coow mën na indi jeexi jaaxa mën na indi waxtaan ci sunu ci sunu ci sunu liggéey et defe naa ne euh, loolu moo am Sénégal te loolu nag en fait du fi lu bees. su ma duggee tuuti ci taarix. parce que boo xoolee boo jàngee histoire u Sénégal. ci wàllu politique da ngay gis ne même Blaise Diagne bi mu ñëwee bëgg a jël pouvoir bi. ci loxo Carpo euh, mi nga xam ne c'était un métis. Mm. Blaise Diagne dafa am ay alliance yoo xam ne moom la wut. déjà alliance maraboutique bi en général. Hmm. ñëpp nañ ko xam nañ maam Cheikh Anta Mbacké bi mu joué mais alliance média bi aussi parce que amoon na benn journaliste bu fi nekkoon benn français euh, damay fàtte tour bi nag xaw ma dara bii la tudd ou un comme ça euh, moo doon santam moom la àndaloon mu yore journal am mu koy mu ciy liggéey di ci jàllale opinion nga gis ne Ablaye Wade bi mu ñëwee aussi. taxawal na soppi ñoom Anta ñoom Cheikh Anta Diop tax amaloon nañ amoon nañ taxaw mm. donc ñoom comprendre nañ politique yi depuis longtemps que mm. c'est important nga nga mass média yi mm-hmm. la différence mooy bu njëkk ba dafa doon am ay journalistes yu bëri yu doon résister mais là on a l'impression que non seulement mm-hmm. euh, tout le monde ne résiste pas mm-hmm. mais avec les réseaux sociaux aussi dafa am benn benn benn ouverture boo xam ne dafa créer situation bu mm. bees foofu laa doon bëgg a ñëw euh, encore ñu xam kan mooy journaliste ak kan moo ko nekkul parce que métier bi c'est vrai que dañu naan dafa bëri ay porox ndool bunt yi bëri na palanteer yi bëri na donc tey bu ñu taxawee ci tribune bi kenn ku ne da ngay taxaw nga ne taskatu xibaar la d'abord qui est journaliste et na ne l'est xam nga loolu moom il faut ñu am ñu am fit il faut ñu am fulla il faut ñu am fayda bu ñu ko bëggee lijjanti. Hmm. ndax jamono yi da ngay gis koo xam ne man ci production laa nekk. absolument euh, donc euh, mooy sama métier depuis quelque temps damay hmm. produire ay film hmm. mais damay nekk ak benn artiste di liggéey ak moom mu nekk comédien ma xëy benn jour gis ko mu yore micro. di <laughs> poser ay questions. donc poser ay question en fait léegi dafa dem ba euh, nekkatul métier alors que pour poser ay question dafa am. luñ lay jàngal dañ lay jàngal nan la ñuy poser ay question nan la ñuy poser parce que interview dafa bëri forme am na ay interview euh, juste pour avoir de l'information mm. y a des interviews portraits y a mm. des interviews contradictoires mm. mais gis nañ lu ne Sénégal gis nañ fi sax nit ku toog di interviewer benn mbër naan ko xaw ma sama dag may gens xaw ma naanga wax naa lu ne am na fi et puis après la personne se dit que kenn mënu maa tere nekk ko jàng sur le tas non sur le tas existé na mais à condition que nga nekk ci benn rédaction et que ci benn ci rédaction boobu nga am encadrement adéquat donc boo amul encadrement bi ci war bu dee par exemple am na yoo xam ne ñoo xam ne dañuy wax rédaction la ñu yore mais en fait yore ñu rédaction parce que rédaction boo xam ne amul benn journaliste boo xam ne am na fa formation pour man leen jàngal ba man li may wax tout le temps mhm. euh, journalisme collecte e traitement de l'information la mais bëri na journaliste yoo xam ne laaj leen ndax xam na ñaari genre rédactionnel. Mm. fii Sénégal nga ne wax ma ñaari genre rédactionnel et puis genre rédactionnel yooyu nan lañ koy defee mais journaliste bu xamul genre rédactionnel fu mu am. mais kooku du journaliste en fait. Mm. bëri na ñu ñuy woowee journaliste Sénégal ñoo xam ne sax demoon nañ fi ba am tur am fi am fi am fi lu bëri ci wàllu journalisme wala ñu am ko fi ba léegi ñoo xam ne xàmmeewuñ xàmmeewuñ par exemple. Euh, compte rendu ak reportage ak portrait ak portrait. boolee pour ñoom reportage mooy gàddu say bagage dem reportage. xamuñu ne reportage genre rédactionnel la. dafa am nu ñu koy defee. dafa am mm. nu ñu koy bindee dafa am nu ñu koy structuré. Mm. donc journaliste mooy suñu profession et que duñ ko mës a dafa am liggéey bu ñu war a def. Mhm. liggéey boobu nag dañ ko war a def ci ñaari sens bi ci njëkk mooy suñu biir sunu biir mooy lan mooy ñu def en sorte que. Mhm. Euh, ñi nga xam ne bokkuñu ci journalisme. duñu ay journaliste amuñu formation académique bi wala amuñu formation bi ci biir rédaction bi ñu bañ a pratiquer journalisme parce que bu ñuy pratiquer journalisme dañuy ternir suñu métier. moo tax ñu naan journaliste yi ñemewu ma leen donc maintenant euh, lu bu ñuy wax journaliste yi léeg-léeg ñu dégg ay kàddu yu ñagas ñu teg ko ci. waaw non non xam nga xam nga xam nga journalisme de tout le temps. Mhm. comme ñun dañuy wax ci li xew. Mhm. di wax ci mbir yi di wax ci nit ñi. forcément dinañ wax nit loo xam ne arrangé wu ko wala neexu ko donc pour ñu am nit bu ñu noonoo wala nit bu ñuy xarab dafay yomb uh-huh. mais xam nga nit dina la xarab mu wóor la ne kii li mu wax dëgg la uh-huh. wala mu wóor la ne kii li muy wax daf ko wax rek ci teeyaayu bakkanam uh-huh. donc li am solo mooy ñun ñuy def ñuy pratiquer noo xam ne bu nit waxee lu mu mënti wax du ñu déranger dañuy xam ne dafay wax waxi boppam la mais dans la réalité mhm. sunu liggéey de collecte et de traitement de l'information def nañ ko mhm. maintenant pour man ce qui est important aujourd'hui c'est d'essayer de comprendre pourquoi ñu egg fii qu'est-ce qui s'est passé pour que Sénégal à un moment donné man je me souviens ci année deux yi bi ñu nekkee rédaction ri am na dëkk yu nekk Afrique yoo xam ne dañ doon envoyé seen nit ñi fii pour que ñu jàngal leen jàngal leen suñu expérience wax wax leen fan lañ jaar ak nan lañ def ba def x ou y am na ay man recevoir naa ay ay ay ay ay ay ay stagiaires yoo xam ne dañu bi ma nekkee Walfadjri recevoir naa ay stagiaires yu jógee euh, yu jógee France yu jógee Angleterre même ku jógee Allemagne. Mm-hmm. recevoir naa stagiaire bu jógee Angleterre bi ñu nekkee l'Observateur parce que les gens. étaient intéressés par l'expérience du Sénégal parce que mhm. tolloon nañ par exemple suñu jëlee exemple l'observateur tolloon nañ ba un moment dans l'observateur on faisait cent vingt mille exemplaires par jour donc cent vingt mille exemplaires on était le premier journal d'expression euh, française d'Afrique ba pare dans un petit pays comme le Sénégal mmh. donc c'était dû à la qualité du travail donc mm, chancellerie occidentale yi quelquefois seeni étudiants en journal dañ leen doon envoyé ci ñun ci sunuy rédaction mhm. ñuy jóge Angleterre ak feneen pour jàng mais defe naa ne loolu bu dee amati na. raar na. Mhm. et loolu lu ko waral mooy ne ci sama gis-gis. Mhm. dañoo reculer c'est-à-dire euh, dafa dem ba euh, un moment Ablaye Wade dafa jàpp ne. Mhm. bu perdre nguur presse bi moo tax. Abdou Diouf jàpp ne bu perdre nguur presse bi moo tax Macky Sall ne loolu du ma dal et il s'est arrangé. pour que yenn nit ñi nga xam ne dañu nekkoon dans les médias am benn capacité d'investigation am benn notoriété bi mën a def benn liggéey bi ñenn ñi jege ko ñenn ñi mu neutraliser leen d'une manière ou d'une autre hmm. l'opposition aussi s'est dit ñii mën nañ maa xañ nguur parce que bu ñuy bu ñuy lëñbët samay affaire wala ñu koy lijjanti hmm. di ko lijjantee neneen mën na maa gaañ l'opposition a eu deux stratégies benn bi mooy wut ay représentant plus plus ou moins crédibles dans les rédactions beneen bi mooy installé la terreur contre ñi nga xam ne dañuy am beneen discours beneen discours bu neutre beneen discours boo xam ne dañuy ñemee wax dëgg wala fu dëgg bi féete que ce soit du pouvoir ou de l'opposition ñu wax ko ñooñu ñu exercer ci ñoom benn téereur di leen saaga tout le temps bu ñu waxee dara ñu saaga leen pour mhm. pour contenir tout, pour contenir tout le monde mmh. le résultat aujourd'hui mooy lan mooy ne écoute euh, léegi euh, ku nekk plus ou moins da xool rek xam fu mu far. xam fu mu far ak yeneen problème yoo xam ne mi ngi ci sunu rédaction man parfois damay damay déglu rajo déglu revue de presse xam nga de presse normalement. Mm-hmm. li gën a important ci information nga ciy wax. Mm-hmm. mais da ngay gis yenn saa yi benn waay boo xam ne dafa am xaalis mu wax wala mu def benn affaire nga gis lu mat six journaux. Mm-hmm. xëyandoo titre waajooju alors que li mu wax. en fait bu ñuy def la hiérarchie de l'information waa ji waroon sax nekk ci une journal mm-hmm. mais parce que dafa fay nga dégg ci revue de presse yi ci yenn revue de presse ñu koy tudd di ko taawi mais parce que dafa fay mm-hmm. et ça buñ ko ñemewul wax mm-hmm. ñeme jàkkaarloo ak moom ñeme jàmmarloo ak moom pour régler ko mais du mës a et plus ñuy gën a dem plus leneen di remplacer journalisme classique bi li ñuy wooyee les médias mainstream maanaam euh, comme télévision yi comme rajo naa nga wax naa nga mhm. mais dina dem ba li nekk ci internet bi mën ko remplacer parce que bu dee sunu benn profu journalisme da doon wax wax bu am solo. Mhm. Euh, Alioune Touré Dia yàlla na ko yàlla yërëm. Euh, da doon wax si les journalistes font n'importe quoi. n'importe qui peut devenir journaliste. Mm. loolu la ñuy dund moom. foofu la ñu agsi waaw ci loolu lañ nekk. Oh, te moom loolu mu ngi ko doon wax en 1993. Mm-hmm. alors egg nañu ci jamono ju nga xam ne ñu bëri dañu dañuy salfaañe. Euh, maanaam li ñu tuddee liberté d'expression ci réew mi te dafa mel ni li nga doon tënk léegi maanaam selon bord bi nga far ak ni ngay traité information dem na ba di gàllankoor liberté boobu nga xam ne moom la ñu am alors jusqu'où s'arrête la liberté d'expression waaw liberté d'expression moom xam nga dafa am lu ko encadré mhm. mooy la loi loi bi daf ne am nga droit exercer euh, liberté d'expression boobu sauf nga bañ a tooñ mën ngaa tooñ nit mën ngaa tooñ institution mën ngaa tooñ keneen ak keneen. mais defe naa tooñ moom dans tous les cas baaxul. Mhm. donc liberté bi dañ ko encadrer maintenant encadrement boobu warul may pouvoir le droit d'abuser warul may opposition le droit d'abuser mhm. te tey pour man abus yi ci côté yëpp lay jógee. Mhm. maintenant moo xam pouvoir wala moo xam pouvoir moo xam opposition parce que ku ci nekk ci ñoom. arme yi nga yore. moom ngay utiliser pour contenir les journalistes et les pousser à parler man plusieurs fois euh, y a pas longtemps def naa fi benn interview sur RFM euh, ma def interview ba pare vers 14 heures 16 heures sama grand frère woo ma ma ñu ngi lay saaga rek ma ne lu ma def fàtte naa sax lan laa wax <laughs> lu ma def mañ may saaga mu ne ma non da nga wax nangam wax nangam ci ci ci RFM ci rajo bi ma ne ko man lool ma wax sax ba ma ko waxee dama wax li dañ ma laaj rek ma wax li ma xalaat mm. waaw maa ngi ci leneen maa ngi sama liggéey mais dama wax sama xalaat rek mais am na ñoo xam ne tey dañu nekk ci internet bi boo waxee lu leen arrangé wul wala arrangé wul seen leader. Mhm. ñu saaga la ci ñaari camp yëpp la. ci ñaar non ci ñaari camp yëpp. Mhm. mu am aussi camp du pouvoir ñoo xam ne am nañ seen doole tey pouvoir bi li ñuy def man man euh, euh, dama koy wooyee souvent des peines de contrefaçon. Mhm. parce que ñoom lu ñu xew xewle tey léegi mooy da ngay de wax dara lu leen arrangé wul ñu jàpp la. yóbbu la en instruction ci loo xam ne yow li nga wax ci internet nga ko waxee walla feneen nga ko waxee c'est-à-dire le corps ñu jël la yóbbu la en instruction parce que xam nañ ne bu ñu la yóbbee devant un juge de siège da lay tëj peut-être euh, une semaine ah, wala sursis wala sursis naanga léegi ñoom ñoom ñooy décider de la peine bi ñu lay mettre c'est-à-dire ils te prennent ils donnent le dossier à un juge d'instruction ne ko na ko instruire ñu yóbbu la kaso tëj la fa nga tëdd fa trois mois 4 mois 5 mois 6 mois hmm. après ñu génnee la liberté provisoire ba léegi tu n'es pas euh, hmm. atewuñ la waaw atewuñ la voilà hmm. ñu génnee la nga nekk liberté provisoire après 6 mois de prison pour man c'est ce que j'appelle une peine de contrefaçon et ah. loolu tamit c'est une entrave à la liberté d'expression c'est une entrave très grave parce que pour man bu ñuy politique nañu politique mm. mm-hmm. mais bu ñuy politique ñoom ñëpp ah que ce mm-hmm. soit du pouvoir comme de l'opposition nañu respecter Sénégalais yi mm-hmm. mais nañu respecter aussi suñu métier ñun aussi est-ce que prêté wuñu le flanc dugg ci géopolitique yi ba loolu di ñu faral di gàll am na ñu prêté le flanc. Mhm. mais du ñëpp ñoo prêté le flanc. absolument parce que boo si xoolee dans les rédactions du Sénégal dans les rédactions sérieuses laa wax il y combien de personnes aujourd'hui mhm. il y en au moins mille ou mille cinq cent ou deux mille. Mhm. dëgg la ñetti pombiteer yu nëpp mën na yàq saaku. mais bon ñetti ñetti nit wala juróom-ñaari nit yu nëpp warul tax ñu ne nit ñëpp nëpp. donc bëri na ci rédaction yi ñoo xam ne tey dañuy xëy dem def seen liggéey mais bëri na ci aussi ñoo xam ne bu ñu ko reconnaître effectivement on prête le flanc effectivement il y a des comportements chez nous qui sont qui sont condamnables mm-hmm. man je me rappelle que mës naa organiser benn conférence de presse euh, xëy euh, la lendemain gis ne conférence de presse bi ñu bëri binduñu ko j'avais pas compris parce que li ñu doon wax pour man c'était important donc normalement dans la hiérarchie de l'information lu mën a génn la te ci ñëwoon ñëwoon ci conférence de presse bi am na ñoo xam ne bi may liggéey ci yenn structures yi man maa leen recruter donc c'est des gens que je connais donc bi ma leen wooyee ma laaj leen mais man dama gis ne lu xew sama conférence de presse bi traité wu <laughs> ñu ne ma non grand yow tamit mais lan laa def <laughs> non démb joxe wu paas. <laughs> Hmm? waaw. incroyable eh, cest à man lañ koy def. c'est-à-dire. yow mi nga xam ne yow voilà donc et ça m'a choqué. parce que je me suis pourquoi ñu def ma ko man. Hmm. parce que au moins waroon nañu rus le fait que. ñenn ñi ñenn ñi am na fu ma jaar ak ñoom. ñenn ñi seen doyen la dans la profession. et tout et ñenn ñi on se connaît bien on a travaillé ensemble dans des structures et tout mais gêné wu leen donc comme ñu ngi ma koy def man. Hmm. je présume que ñu bëri ci ñoom léegi fu ñu dem dañuy laaj paas. dëgg la léegi paas boobu laaj fu ñu ko teg. bi seen rédaction yi dañ leen joxul paas wala. lépp waaw per jëm seen rédaction yi dañ leen joxul paas wala. mais loolu c'est systématisé dans ce pays mm. mais c'est pas normal. Mm. c'est pas normal parce que ça veut dire que tey ñun ñi ngi ci beneen. Mm. en fait ci beneen genre commerce lañ nekk. c'est ça donc loolu lépp bu ñu ñemewul toog wax ko waxante ko lijjanti ko kañ lay lijjanti ko. te euh, démocratie bu baax mënul am bu dee réew ma amul presse bu baax. tey boo gisee réew yi réew yi ñu jàppoon ne ñooy démocratie yi gën a mag muy États-Unis muy feneen bu ñu demee tey ba seen démocratie commencé na sax ba ñuy attaqué capital ba leneen ak leneen c'est parce que presse de qualité ba ñu amoon moom lañu ñu ñàkk ñun nag suñu presse de qualité bi ñu amoon benn moment bi taxoon ñu bëri doon voyager di jël avion di ñëw di ñu seet si pour waxtaan ceeg ñun euh, sottanteek ñun xalaat xool ñoom nan la ñuy jubbantikoo liñ ci perte dafa bëri te mm-hmm. loolu lijjanti xamante ne moom mooy njeexital yi yaa ngi ko doon junj sànq par rapport à l'avènement des réseaux sociaux tamit ñu nar a jël indirectement la place des journalistes mm-hmm. enfin du, journalisme en tant que tel est-ce que benn ci njeexital yooyu noonu mën nañ wax ne que le métier en tant que tel il se meurt finalement euh, mënul dee parce que pour man nit ñi bés bu ñu xëyee dañu soxla xam li xew mm-hmm. tout loolu c' un besoin vital. est ce que tant que ku am téléphone am mën a filmer mën a bind. itam waaw mais mais loolu euh, li ma li sama professeur bi rek euh, doon wax Alioune Touré Dia. yàlla na ko yàlla yërëm li waxoon si les journalistes font n' importe quoi n' importe qui peut être journaliste. mais journaliste bi ñu jàngal les technique de collecte et de traitement mu xam ko mu xam ko de manière de manière très professionnel xam na la ñuy xam nan la ñuy traité xam nan la ñuy collecté. mënul niroo ak kenn koo xam ne day dox ci mbedd mi yore téléphone am. bu yore téléphone am non déjà journaliste na muy def ba am source am na muy def ba am yenn information de qualité mais bu demee ba ñun. les journalistes font n'importe quoi mais n'importe qui peut être journaliste mmh. parce qu'à partir de ce moment su dee journalistes ce sont juste benn des caisses de résonance euh, ñaar euh, des porte-micro ñett des des courroies de transmission mais n'importe qui peut être journaliste parce que en fait loolu yomb na en fait n'importe qui peut se lever gàddu téléphone am ñëw taxaw wala léegi caméra yomb na appareil photo sax caméra la téléphone caméra la mën nga ko teg sa kër def sa benn sa benn fond blanc sa benn fond vert def lu la neex def say def say vidéo def say affaire ne da nga yore chaine am ñoo xam ne parce que parce que bu la ci kenn nax information hmm. am na loo xam ne su ci porté nit ñi forcément dinañ ko xool loolu jàngal nañ ñu ko les critères de choix de l'information on sait que quand tu parles d'argent quand tu parles de violence mm-hmm. quand tu parles de sexe les gens regardent mm-hmm. parce que c'est c'est primaire que tu flattes waaw loolu li gën li voilà li gën a li gën a ci nit mm-hmm. moom ngay laal boo ko laalee nit ki dina yëngu donc forcément bu nit ñi nekk ci réseaux sociaux yi boo xoolee même ñi ñuy wooyee waa am na ñuy wax ay influenceurs la ñoo xam ne ils traitent même pas de l'information mm-hmm. mais toujours ils mm-hmm. vendent ça ils mm-hmm. vendent du corps ils vendent de am na lu ñuy jaayee yoo xam ne bu ñu ko jaayee nit ñi dinañ ko xool mais loolu encore une fois mm. bon il est important ñu xam ne qui des organes de régulation parce que dem nañu fi ba egg sax ci tëj signalu ay télévision wala ay rajo lu ni mel tey jii euh, est war nañu mun a egg foofu ci réew mu xam ne réewum démocratie la. waaw xam nga man bi ma yëgee ne euh, dañoo tëj Walfadjri dama rus. Mhm. dama dama rus parce que. Euh, dal na fi Sen TV tëj nañ fi Sen TV ma ma rusoon ñu tëj Walfadjri ma gën a rusati. Mhm. Euh, ndax dafa Sénégal lu doy waar moo fi am maanaam dañu tolloon ay jamono yoo xam ne ay Sénégalais yu bari dañoo jóg taxaw xeex xeex au de norme sacrifices. <coughs> parce que boo xoolee Sénégal de 1968 à 1988 génération boobu combat yi ñu mënee pour plus de liberté au Sénégal pour euh, liberté d'expression pour liberté d'association pour liberté yeneen ak yeneen. Mm-hmm. combat boobu ñu mënee dafa am ay sacrifices dafa am ay nit ñu ñu ñàkk seen bakkan. Mm-hmm. dafa am ay nit yuñ ci enrôlé woon yóbbu leen service militaire par force. Mm-hmm. ñu xeex xeex ba ñu am droit. ku nekk mën a wax sa xalaat ba am ay émission yu tudd wax sa xalaat ci télévision yi mhm. ak ci rajo yi ñu jël benn benn waay boo xam ne ñun ñëpp sunu mag la muy Babacar dinaa ko tudd fii tey mhm. ñu jox ko lu mel ni CNRA muy tëj ay télévision di tëj ay rajo mhm. ci lan waaw waawal fajri def nañ reportage mais waawal fajri li ñu wane inventé wuñ ko jusqu'à preuve du contraire man dégg naa ñuy critiquer ne non waruñu woon mais li ñu wane inventé wuñ ko cest dire li ñu wane c'est des gens qui manifestaient et ñoom ils ont mis leur caméra pour le montrer donc c'est quoi le problème donc le le souci pour man mooy ne waxoon naa ko fi benn jour nee naa leen Sénégal dafa entrer dans un dans ci benn moment de récession politique Uh-huh. récession mooy dellu ginnaaw xam nga récession gars yi dañ jàppoon ne récession mooy récession économique mais récession politique lañ nekk. Uh-huh. récession politique moo indi ñu def fi élection législative. yoo xam ne ay liste suppléant la ñu la ñu la ñu yóbbu ak ay mocce liste ak daggatu liste ak ñeenti liste ñu dem ci assemblée nationale ba dafa xeex di fa dóorante ay copain ñu gis façon gu député boobu récession moo indi façon gu journaliste boobu ngay gis toog ci toog ci télé benn kii YouTube wala toog ci télé am fu mu far ba mu wóor la ne kii fii la far mu koy mu koy mu koy doxal di ko wax te dara du ko ci fekk parce que tamit euh, nañ ko wax te dee journaliste yi ñenn lañ ci sénégalais yi mais ci sénégalais yi lañ bokk. Mhm. te Ablaye Wade da doon wax benn wax dafa mës a wax benn wax boo xam ne dama ko jàpp daf ne sénégalais yi bu leen wax dëgg wax leen li ñu bëgg a dégg. Mhm. te sénégalais bu mer. Mhm. nga wax ko ne diw euh, na ma yàlla baal nga tamal ko nit ne ko diw dëmm la. su meree kooku ne ko diw dëmm la mu ne la dëgg la. dëgg la parce que loolu la bëgg a dégg. loolu la bëgg a dégg. donc c'est ça qui fait la jeu de ces gens là. mais pour man. su presse bi defee li mu war a def def un travail de qualité ku amul formation di taxawaalu ci mbedd munoo def travail boobu mhm. parce que ñooñu loo gis ci ñoom mooy ñu ci bëri ci ñoom mën nañ la wax tey mhm. benn information suba ñu wax la l'exact contraire c'est ça merci beaucoup Aliou Ndiaye moom la ñu àndaloon ci euh, jàngat bi ni mu ko waxee mu doon waxtaane lu jëm ci euh, liggéeyub euh, tasum xibaar fii ci Sénégal léegi-léegi ñu dalal sunu invité